asalaamaaleykum internaute bu info euh, réew mi point com nu ñu leen koy faral di defee saa su ne euh, saa su ne itam ñu dugg ci jotaay yu am solo yi le rawatina jotaayu wadduha mu mel ni itam ñu ngi fii tey ci diwaanu euh, géejewaay boo ñëwee en face lycée Mame Limamou Laye ñu fekk si waat ci jëmm ju baax jilee di El Hadji Modou Cissé tabarkàlla xam a màcc lool di dimbalante ak jaamu yàlla yi ci wàllu ñaan ci wàllu paj waaye itam balaa ñoo def dara rek dañuy waat kàdd gi jox ko mu daal di nuyoon teg askan wi bu ko defee rek ñu daal di delluwaat ci jotaay bi lay euh, sëriñ El Hadji Modou Cissé ñu ngi lay wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu Mouhamadou Lamine Muntaxa ñu ngi lay delloo nuyoo ak siyaara si Seydul Ayam muy yowmul jumaha di nuyu équipe bi nga àndal yëpp muy équipe bu info réew mi si jiital sëñ Babacar Ndiaye Soda. di ñaan yàlla yokk ko kattanal ba yéeneem si info mi fu mu ko yéene rek fa tabarakallah mu mën a mat soxna jaara ak ñi mu àndal ñëpp nu ngi leen di nuy di leen siyaara di leen ñaanal di ñaan comme nan ko daan ñaane rek eh, yéene bi mooy ñëpp mucc ñëpp yokk ñëpp defaru looloo yéene Wadduha nu muslu si yàlla si na bakkan ak seytaane ñaan lépp lu nu fi yëkkati rek mu doon lu yàlla gërëm Mahamadou Lamine moo Modou Cissé mu nekk loo xam ne lu am am solo la euh, ni ñu koy defee saa su itam mu mel ni tey ba muy euh, dugg ak yow ci bunt bu am solo muy wàllu xalwat xalwa mu nekk loo xam ni euh, lu askan wi ku ko dégg nag tur bi day nekk loo xam ne lu rëy la am na ñoo xam ne bu ñu ko dégg itam day xaw dis ci ñoom xalwa mooy lan ba fa tabarakallah du lenn lu dul weetal borom bi kennal ko sa itte ja nga xam ne bi moom nga am nga tàllal ko say loxo moo xam sa itte la moo xam itte jàmbu la yàlla booleel fa tabarakallah loolu lan mën a tegge teggee tekkee wa ndax muy wéet wéet ga nag dangay wéet ba pare di wéetal ka nga xam ne mooy kenn te mooy jalla jalaaluhu sa kamal ndax dina di wax ne ñaan ñaan fa tabarakallah ku nekk mën na ko waaye ñaanin moo wute ñaanin nag bokk na si la ñuy wax xalwa ndax dina di wax ne yenn saa yaram dinay metti coono am nu ne la jëlal médicament sàngam boo ko jëlee sa yaram woyof waaye ñaare dinay àgg foo xam ne du ñàkk consultation bu consultation amee ba pare du ñàkk ordonnance fa tabaarakallaa mooy tax te bu nekk rek ak yoon ba nga xam ne bii moom nga ëpp yaakaar wala yoon ba sa ngir nga ñaan yàlla euh, bokk na si buntu ñaan yooyu nag xalwatu nu si sant yàlla bu baax di sant sunuy wayjur euh, di ñaan yàlla mën yërmande sa ñoom ñax si ndogalu yàlla ñoom ñaar ñëpp yàlla def na nanga nga barsàq fa tabarakallah yàlla dimbali nu nag depuis 2004 nuy def xalwatu fa def ko si barab yu wuuteeg dëkk yu wuute yàlla yi dinu ci defal suturu lu bëri bëri ndax saa yoo sa génnee rek yokk nga sa garaat yokk nga boo doon ne da ngay yéeg tamit saa yoo sa génnee eh, teg nga beneen escalier te fa tabarakallah ku yéeg bu yàggee rek da nga àgg fa tabarakallah muy lu xam ne bi macha allah dana si sant yàlla bu baax a baax a baax eh, eh, si mbégte yi nga xam ne bi moom la ñuy am saa yoo xamee ne bi moom lan def xalwatu ba génn fa tabarakallah loolu si lu la si mën a tënkal la nu di koy def lu bari it fa di koy defal ñu bëri it fa tabarakallah eh, si kàttanu yàlla ak man-manam man yàlla dina si defal ndam Eh, loolu daal si lu nu la mën a tënkal si xalwa la waaye mën na noo wax ne ñaan la ndax dinaa di wax ne eh, amaana koo xam ne bii mën nga sa jël turam ak turu way juram seetal koy buntam génne la ko ay sarax loola rek mën na defar léppam te billaahi eh, la si lay lax la xaw yenn saa yi nit danañ koy wax ay saraxam rek lu bëreem defaru amaana koo xam ne bi fa tabaraka ñaanam kurus du sa mën a ñàkk te mooy turu yàlla yoo xam ne danga ko koy ñaanal te ko koy defal ay askar su fekkee ndey soxla bu diis loo nag fa tabaraka laa daf say gën li ñuy wax xalwatu nga xam ne macha allah dañuy wax nan koy mën a tekkee su ma doon jënd loo yor te nga ne téeméer nga ma koy jaayee amaana su ma génnee dina am junni boo yoree junni nag si loo xam ne téeméer lay jar loolu njort nañ ne mën na nekk sa wërsëg fa tabaarakallaa muy lu am solo Mouhamadou Lamine. jërëjëf El Hadji Modou Cissé yaakaar naa noonu leer na loolu tamit yaakaar naa leer na ci askan wi euh, bëggoon nit xam ban jamono la ñu war a dugal doomu aadama bi nga xam ne mu ngi ko yittewoo ndax ñëpp ñoo yellool euh, xëlwatu wala xëlwa dafa am dimension boo xam ne tolluwaay boo xam ni. Euh, boo fa toll nga ne kii kat xëlwa moo mën a doxal ay mbiram. wallaahi wallaahi ndax macha allah comme li ma la waxoon rek du aajo yëpp. du tawat yëpp aspirine moo koy faj ñaare day am itte yoo xam ne ki nga xam ne macha allah bëgg nag palo te nga xam ne yàllay fal waaye mu wéetal yàlla ñaan ne ko yéene naakat jaam bi nga falal ma ko jël tur ya nga xam ne bi moom ngay liggéey te yàlla dala si defal ndam fa tabarakalaa nga seet bunt ya nga say jaar ak sarax ya nga koy génneel ngir nga ñaanal jëmm jooju mu am ak pal mm-hmm. moo xam tamit fa tabarakalaa aajo bu tara tara tar boo xam ne bi macha allah xalwa rek mooy buntu ba say gën di gaaw ndax dinaa di wax ne ñaanin la te macha allah no ni ni wax rek macha allah su ma doon ut si yow dara e, ñaanin ba ak waxin ba man nay tax macha allah doo may gàntal xalwa nag day yoon boo xam ne bi loo si duggee rek da ngay génn ak alhamdulilahi rabbil alamin lu si sant yàlla ndax e, mosoon naa ko wax si benn émission mm-hmm. si ne xallo bi ma njëkk a dugg 2004 ba léegi yàllaa ngi may defal sutura amul lenn loo xam ne ni ser naa ko te yàlla def lu ma si ndam te tabarakallah ba ma ko doon def fi keroog ba ma ko doon def fi nu yebaloon ma Louga ndax eh, macha allah eh, lanu yàlla jenculoon te muy ndonooy alxaaji àlla Cissé bu njaareem mm, njabootam la bi ma joxe woon ndigal ma ñëw Dakar depuis 2003. 2004 lan ma yebal ne war lan ma diggal ne war naa def xalwa jox ma ndigal ne Louga laa ko war a defe ma laaj ko sa ndigal it booba mu ngi fi yàlla yàlla beesal yërmande mu jox ma sa ndigal war a dem Louga fa tabarakallah sa paas sax man nañ ne matul lool e, jëmm jënu ma booleel ñemewuma ko woo ndax dama ko doon bañ a woo duma koy jot may famu te booba dogu naa sunu kilifa daana nu daana wax ne boo dogoore yàlla daggal la <clears throat> bi ma demee ba wàcc moom laa ko doog di woo ma ko jot jigéen te ki ma war a seeti góor la mu ne ma waa dëgg la kay kooku ngay seet moom moom téléphone bi waaye daf ko fii sarse booba téléphone taxul mu bari lool fa tabaarakallaa si laa dem këram këraw laa ma sa wàcc si dëkk boobu fa tabaarakallaa wàcc fa doon surga ba jant yi laata su lépp loo xam ne bi taxoon na may jóg lépp loo xam ne bi si nekkuwaay ak luy tax la ma bëggee sama liggéey dox yàlla defal ma ko ma xam ne bi fa tabarakalaa yàlla nar na leeral lépp la njëkk defee xalwa juróom-ñaari fan moo tax yàllaa ngi nuy dimbali at bu nekk rek dinaa yéene dem Louga dafay def siyaara di beesal loolu ndax isaara la woon si ne fa laa ko war lépp lu ma fa doon sàkkit fa tabarakalaa yàlla defal nañu ko danu fa jógee ba léegi dinaa di wax ne Eh, amul lenn loo xam ne itte walla wala yéene wala jaam bu am yaakaar si ñun ñu ñëw fi yàlla tas ko loolu na si sant yàlla bu baax Mahamadul Amin waaye depuis boobu ba léegi si fa tabarakallah barab yu bëri te wuute si fii si ndakaaru wala yeneen i dëkk yàllaa ngi nuy dimbale nu ko fay def ak jaamu yàlla ñu ni yàllay booleel te muy seen war wërsëg mm-hmm. jërëjëf El Hadji Modou Cissé mbokk yi mu mel ni rek yéen a ngi wéeg ñun ba léegi rek mbokku téléspectateur bu internet bu info réew mi mu mel ni ñu ngi waat fii ci diwaanu Géejawaay ci Ndakaaru fa seen fee fekk rek dégg ngeen jotaay bu am solo bi jotaay Wadduha ak El Hadji Modou Cissé dégg ngeen ci buntu xalwatu waaye fi may tëjee El Hadji Modou Cissé mooy ndax bërëb bu la neex rek war nga faa mën a tëjee xalwatu wala xalwatu dafa am ay charte waaye am na tamit bërëb yoo xam ni foofu lañ ko war a duggee wallaay wallaay dafa am ay charte comme noonu ma la wax rek ndax macha allah Eh, du barab yëpp mooy leer pour loolu fa tabarakallah mooy tax loolu faw nga am eh, lu la yàlla baaxe si bunt barab yoo xam ne mooy gën di ubbeeku mm-hmm. barab yoo xam ne bi fa tabarakallah foofa ne allahuma rek yàlla ne la la béyk dina yomb barab yoo xam ne bi it eh, rawxaan turu rawxaan boo fa jël fa tabarakallah dina la fa mën a fekk ba sa aajo faju yooyu yëpp ak xeetu sadaxaat yi ngay def yooyu yëpp fa tabarakallah day am solo nga xam ko lu koy may rek safaan mën nay am te dootul euh, la nga doon ut si xéewal waaye wax yaasubillah mën ngay am safaan ba ndax dinañ di wax ne kilifa boo koy woo soo doon woo sooy woo kilifa war nga ko wàcce wàccuwaayam te mooy fa tabarakalaa foo xam ne bii bu fa ñëwee dana tollook wàcc wàccuwaayam mooy tax du bërëb yëf tabarakalaa moo koy laaj <laughs> la yaakaar naa loolu moom euh, mën naa ne tëjoon na rek jotaay wadduha ndax xalwatu euh, ñu bu ñu la ko xamee xamee nañ la ko bu baax ku la xam xamee nañ la ko ci xalwatu ndax boo xamee sama xamee maag yow mm-hmm. euh, ba ñu njëkk gisee dafay fekk ni yaa ngi soog a ubbi xalwatu si la ñu xamante maag yow loolu tamit dañ la dañ la koy seedeel mm-hmm. te saa soo ci duggee itam yaa ngi ñaanal réew mi mm-hmm. adduna bi yëpp yaa ngi leen ci ñaanal waaye tamit duñu def lu dul santaat la bu baax ginnaaw si damay ñëw ak yow ci mu bëri lool ci jamono soxna yi nga xam ne dañoo toog jigéen yi nga xam ne dañoo toog bëgg borom kër mhm. ah bëgg borom kër mu jafe leen waaye tamit ku jigéen ki nga xam ne am na borom kër waaye tamit njaboot jafe ko mhm. kooku tey ñoo ngi toog am ci jafe-jafe lu leen lay wax ñoom wallahi wallahi xanaa di leen di wax rek nu gën a dellu si yàlla ñaan ko ndax jaam ñaan rek la am te macha allah sama xarit yu jigéen yi dina di wax euh, toujours loo xam ne euh, macha allah kuy déglu émission Wadduha rek bëri na loo koy dégg si ne xéewalu jigéen la sa gën moy sey fu tabarakallah sey tamit fuma mu rek njabot gu barkel ñaan ko sa am solo nak moo koy gën di dëgëral eh, fu tabarakallah yenn say da nga di togok ak soxna wahai wax ay itte wax ay itte ba bëgg jéxal dog doog wax ak borom kër su ko defé dama koy xaw di jubanti ne ko ba nga mujjé mom nga waron na ndax dañ ni wax ne tarangay adina yépp la sa gën moy njabot te njaboot julli du koy amee lu dul si sëy kon képp koo xam ne soxna nga eh, boo demee ba toll yenn at yi danay neex lool nga am borom kër fa tabarak laa la koy maye mm, xam naa du ñàkk lu ñu leen si baaxee eh, inaan sa nax fi laylatul xadr eh, yàgg naa koy wax ndeysaan si mission Wadduha li mu 44 bi ki nga xam ne 444 bi dinay bëri si ma mu koy def 44 sa guddi mm, altine. El Hadj Modou Cissé ñu daal di ñëwaat ci wàllu soxna yi mu nekk loo xam ne lu lu lu bëri ci jamono ji laay wax. soxna yi nga xam ne ñoo ngi toog amuñu borom kër. te moom jafe leen lool. waaye tamit mu mel ni tam am na soxna yoo xam ne am nañ borom kër waaye tamit dañu bëri dañoo jàpp ni moom sëy moom contrat moom faw doom am ci. ñi nga xam dañu xaw a am jafe-jafe am doom njaboot njaboot gu barkeel loolu sëñ maaraa tamit sëñ El Hadj Modou Cissé loolu tamit nekk loo xam ni lu jafe-jafe la ci jamono ji. wallaahi wallaahi Mouhamadul Eh, comme ni koy waxee rek ne xewalu jigéen bokk na la sëggan mooy am boroom kër waaye bokk na la sëgganin mooy am njaboot ndax dinañ di wax ne alal alali àddina yépp njaboot moo si gën surtout bu dee njaboot bu baax nekkandoog moom day nekk mbégteeg njariñ si waajur waaye su ko waajur jiitoo tamit fi tabarakallah du denc ko yónnee xàddiya te bokk na si xéewal ya sallallahu alayhi wa doon wax ne du dagg mooy bàyyi njaboot gu baax mu di lay ñaanal te loolu lépp mën te fondé woo fenn lu dul si sëy kon sëy lu am am solo la si soxna fa tabarak la muy am solo te muy doonoon lu war tamit te nu yéene ko suñu jigéen yépp muy ku si am at yu tollook ñaar fukki at mën a jan mën a am boroom kër ndax dinaa di wax ne eh, dëkk ba nu nekkoon doon fa jànge arxuraan ñaare daana néew lool ngay gis jigéen ju am fukki at juróom te amul sëriñ su ko paase tuuti rek dañ daan wax ne diw de yeex naa jar léegi nag fa tabaarakalaay ngay faral di gis koo xam ne dem na bay làq 40 ans te eh, du am sëriñ julli nag ñaan rek la am mm, te ku nekk sa ngay ñaan la nga bëgg bu dee soxna si nga xam ne toll na si am ko te amu ko muy ñaan borom bi yàlla may ko xéewalu jëkkër dinaa di wax ne bokk na si inaan salnaahu fi lailatul xadr 444 wala 44 mën na def li mu 44 bi su demee ba mu yàgg mu yokk si 400 mu di koy def guddig altine dinay am solo tabaraka laa kuy soxna rek day koy bàyyi xel yàlla mën na la si dimbale Dinadi di wax ne fi tabarakallah suratul jumaha bindu ko al juma sangu walekum sangu ko ak sagu tegal segal e, soxna su koy def yalla mo ne lay dimbalé nga am fatu mo may len si yonu latif fi tabarakallah di waxale tout sa la koy indi nak bokku na si dak sa jeuker dinay faral di am te moy ki nga xamne bi fi tabarakallah e, tollu na ci am serigne amaana nit ut ko mu naan damay jàng ba pare nu <coughs> wax na santaane yàlla euh, warul di tàrde ma ne ko lan lan say teg bu tardé moom bu mu tardé te sëy lu nu yàlla sant la mooy tax loolu nu koy bàyyi yàlla xel si ne lépp fu domaine bu nit nekk rek bu soxna nekk mm-hmm. su ko sa jëkkër fekkee bu mënta bàyyi loolu it bu mu bàyyi jëkkër lolé nuy bayale ko xel di dolli de arta tamit mm, soxna yi ba nga xamné bi di mom sen bop bu ne mom sen bop dan mooy dinan nu dem ba nga xamné foto fatu fa la am e, faru e, jinne moy leen wax faru rap te muy lu béré béré bëri te ëpp wet di xam ci def waxtan spécial mhm. fatu tabaraka la yoy yep nu koy xel day am solo lool tamit lama don wax rek mooy macha allah ku tollu fofu te nga tëju ci mbiru serigne nga set sa taxaway set lay sey buntu ci sarax yo xamne soko soo yàlla mën na lay dimbale nga def ko yàlla mën na la sé dimbale moy wala sid yon bo xamne ci si latif la bismillahi latif ko xamne bi tabarakallah ba nga yàlla may la wettel jigéen ju bëgg jëkkër bu mënee am 66 kola groupe bu nekk rek mu jàng si 66 ismullahi latif su paree mu def ko si ndox euh, bu 66 kola yëpp moo tee mu sangoo ndox booba euh, goro yee mu fexe ba mu génn mooy mu saraxe ku li wàccilla fa tabaarakalaa dañ ne si kattanu yàlla ak barke latif balay wañu 66 suur yàlla mën na ko may wettel yàlla mën na ko may sëriñ fa tabaarakallaa yoon boobu nu ngi leen koy baaxee asmaulaahi lu xusna 99 daal laax yi tamit fa tabaarakallaa am na solo si koo xam ne bi ba nga wettel eh, nga di koy jëfandikoo fa tabaarakallaa yàlla dina la yombalal wettel rabbi laa tasarni fardan wanta xayrul waarisin yàgg naa ko fi maye moom it li mu 55 ba nga xam ne mooy mu mujjibu dinaa di wax ne képp koo xam ne saxal nga ko boo jullee fajar ak boo jullee gee yàlla dina la yombalal nga am wettal te mooy jëkkër su la yàlla may wettal te njaboot ñëwagul it fa tabarakallah soo ko saxale yàlla dina la yombalal nga am ndono fa tabarakallah muy rabbi laa tasani fardan wa anta xayrul waarisin mahamadul amin jërëjëf El moo Modou Cissé mu mel ni daanaka rek euh, la ñu dese ci waxtu taxu ko bare ci tënk bu ndaw euh, ñu waa njaboot ga euh, moom laay gémmee foofu wax ne kenn du gane àddina lu dul coobare borom bi jëla jëla loxo waaye si kàttanu yàlla nga xam ne yàllaay lépp ndax baatu maa dama koy maytu damay damay dama koy maytu ndax macha allah nit da nga koy wax sax yàlla nattu la sa balam la mayoon mu téyandi ko mm-hmm. di lay wan ne moom mooy yàlla mooy tax dama koy xaw di moytu dinaa nangam wala damay nangam dama koy maytu waaye yàlla kàttanal nañu yoon yoo xam ne bii képp koo xam ne amoo benn tawat bu rax mbiru tubaab si kàttanu yàlla suñ la ko defalee looy xewlu la looy togg sëpp xewlu ko ak looy naan ñeent fukki fan si kàttanu yàlla balay 40 sur yooyee mat da nga yore dara te mooy da nga wan lor si kàttanu borom bi Muhammadul Amin jërëjëf El Hadji Modou Cissé mu mel nii euh, daanaka rek euh, li ñu jegle doon ci waxtu euh, daal dina ñuy dab. Mm-hmm. mu mel ni askan bi doyatul doyaluñu. waaye tam ñuy sant mboolem téléspectateur bu internet bu info réew mi elhage Hadji Modou Cissé lan ngay tàggatoo askan wi. alhamdulilah lu siy jub rek nu sante ko yàlla lu si sa fanu it nu jéggal ko wax na yéen bi lépp mooy ñëpp mucc ñëpp yokk fa tabarakallah Mouhamadul Amin di lay nuyu di lay siyaarate di lay ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen santaat bu baax a baax El Hadji Modou Cissé la woon ñu fekk si woon ko fii ci diwaanu euh, Géejawaay ci dakaar waaye tam ñu di ko santaat bu baax di ngeen allahu buur bi subhaanahu wa taala doole guddal fanam lool euh, doole ko defal tawfiix ak taysiir defal ko najaaxa defal ko saxadaare ni ci bi mu yàgg lool lool ci kanamu njaboot gi waaye tamit yàggal lool ci kanamu askan wi eh, di dimbalanteeg jaamu yàlla yi waaye tamit di leen fàtt rek ni eh, yéen ñi ko yittewoo rek boo leen duggee eh, numéro bi yaakaar naa moo ngi noonu affiché ci baar bi rek jaratul sax ñu koy lim waaye tamit site bi nga xamante ni lépp lu ngeen xam ne soxla ngeen information ci El Hadji Modou Cissé boo leen defee ñetti w ngeen ko ci moom waaye tamit wadduha solidarité moo ngi fii waaye tamit taxi a mën a Teknik technique bi nga xamni mom lañu andalon fi di len santat bu baakha baakha baax a tamit boutique yi di len ko faté ah, hein boutique Wadduha yi ki euh, diwanu way mo ngi fi en face lycée mam Limamou lay ki diwanu Point E ci diwanu Tëngéej di Rufisque way keur Massar waaye tamit Mbour euh, Sali Carrefour mo ngi fa ci diwaanu Diourbel Njaarim foofu tamit boutique yi nga xamni taxawal na ngir ndiar ngi ngir askan gi lepp leen fa wu sen walum ñaan sen walum jaamu yalla bu len fa démé ci tabarakata euh, ci tabar tabarkàlla ngeen da ngeen ko fa gis waaye tamit ma leen fat rek ni ñu ngi wat mbolim équipe technique bi yépp di wat bu baakha baax ci caméra bi ak ak montage soxna Mame Diarra Gueye ci wàllu réalisation bi sëriñ Babacar Soda Ndiaye ah, ñu ngi koy nuyu waat bu baax ah, di ko nuyuwaat sëñ Babacar Ndiaye Soda waaye tamit ah, sëñ Tine ñu ngi koy nuyu ci wàllu présentation bi seen bokk taalibe la Mouhamadou Lamine Muntaxa yàlla mi borom jàmm te it ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla saa borom bi dool ñu defal jàmm di leen wax salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu